mu waxtaan wi sida bismillah
bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi santaat yàlla subhanahu wa taala di leen nuyu waat di leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi woon ci jigéen dafa war a tànn borom këram ak ni borom kër gi war a mel ñi ngi tolloon ci suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy gën ji mbindéef moom dama ni góor ñëpp moom la ñu waroon a roy ci biir kër gi ni ñuy doxali ak seen soxna ndax yàlla daf ko yónni mu nekk jàngalekat mu ne na ngeen ma roy yàlla daal nañu roy leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu ne ñeel na leen ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam royukaay bu rafet yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñuy jàngal góor ni muy yoree soxnaam ak ni muy nekkee ci biir këram moom soxnaam mu ne góor dafa war a nekk koo xam ni ku leet lay doon ku laabir lay doon ci ay soxnaam ku leen di jàppale sax ci biir kër gi lay doon loolu moom yaakaar naa góoru Sénégal bëriwul ñu ko nangu jàppale sa soxna ci biir kër gi am na ñoo xam ne bu la lalalee laal sax def na nee na yëpp bale néeg moom xalaatuñ ko tànn ceeb waxi noppi yonent bi salaa salaam daf daan nekk ci liggéeyu kër gi di leen mooñ le di leen lakk le mburu bi ñuy lekk ba julli jot mu jàpp dem sa jàkk ji julli sallallahu alayhi wa sallam te yaakaar naa kooku kuy am personnalité rek moo la ko ëpp kuy baax moo la gën a baax te noonu la daan def di waxtaan ak njabootam di dàqante ak ñoom Aïcha radiyallahu anha dafay nettali mu ne dañu mës a ànd ak yonent bi salaa salaam dem ci benn xare nee na bi ñu demee ba mu yàgg mu daal ni saxaaba yi jiitu leen ma bi ñu ko jiitoo mu ne Aïcha nañu rawante Aïcha nee na boobu maa ngi door a sëy si nekk xale aw ma woon yaram nee na ma ànd ak yonent bi di daw ñuy rawante ma raw ko nee na ba mu am ay at mu daal di koy defaat ne nañu rawante nee na fekk nag xam nga jeeg boo sëyee léeg-léeg da ngay diis da ngay am yaram nee na ñu rawante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raw ma daal ne ma bii mooy fayeeku bële bu njëkk ba hadihi bi tilka tey ana ban borom kër mooy rawanteeg soxnaam dañ naan loolu ñàkk fayda am na ñoo xam ne yenn wax yi sax duñ ko wax seen soxna mel ni alkaati ci biir kër te borom kër xar la war a doon ci biir këram su génnee nekk ngay def waaye boo duggee rek tëj ñàngal saxaaral sa kanam te kat am na fooy toll yaay gën a ñàkk fayda xale ñu baal ma ci kàddu yi kon borom kër boo koy tànne xoolal góor gu lewet góor gu laabir góor gu baax góor gu mën a muñ jigéen ku mënta muñ doo ko yor jigéen ak ay caprice jigéen ak mën a tooñam jigéen ak mën a kokkaleem jigéen ak gaaw a fàtteem ak néew dooleem góor gu laabirul mënoo muñ doo ko yor wala yor du rafet moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy waaj a génn àdduna ak ji mu mujjee def lan la ci wax stawsu bin nisaai xayra fa innama hunna awaanun indakum mu ne maa ngi leen di dénk jigéen ñi ñoom de ay ndénkaane lañ ñeel leen xam nga ne koo xam ne yaayam daf ko dafa dafa juddu yaayam di koy yar ba mu màgg te gis ngeen doom bu jigéen ni mu neexee ci xol lu rafet mu jëndal ko solal ko defar ko ba mu baax nga ñëw bëgg ko ñu daal di koy jël jébbal la ko keroog lañ ci gën a am responsabilité boo sëyee sa kër borom kër sa yaay ñi meetu laa woot lu dul sa ndigalu borom kër ñi meetu laa sant dara lu dul sa ndigalu borom kër kooku kuñ ko defal nag wax dëgg yàlla kañ la jox nga war koo fonk te xam ne ña la ko jox ñoo la ko gën a bëgg benn waaye dafay nettali mu ne dafa amoon soxnaam mu ne waaye melul ni mu war a mel ci soxna si daf koy gëdd daf koy yuuxu daf koy toroxal daf koy maltraité parce que moom dafa tàng mu ne waaye jour ba mu amee doom bu jigéen mu am 17 ans mu koy muur mu sëyi xolam jeex xolam tàng xolam metti ci ki mu bëgg a gën a bëgg ci nit ñi muy doomam mu jël ko di ko jébbali góor te nee na bëgguma sama doom jooju dara xori ko wala mu xosi ko wala mu wokk ko mu ne keroog laa fonk yaayam ma xam ne kii yaayam jii biñ ma koy jox nan la meloon ci xolu bàppaam kon ku nekk rek del xalaat yow sa boo amee doom bu jigéen surtout xalaatal ni mu neexee ci yow sa jabar jii noonu la neexee ci xolu bàppam kon jigéen dañ koy teral booy tànn borom kër tànnal ku lay teral ñett bi salaa salaam mu ne góor gu baax su fekkee danga koo tànn su meree da lay teral soo ko defee lu ko naqari mu muñ waaye nag boo tànnee mandaari boo xam ne xamul dara ci diineem xamul sax li muy doxal digganteem ak boroomam xamul àq yi dox ci digganteem ak boroomam waxuma laa nag digganteem ak soxnaam boobaa dañ koy yàq sëy bu nekk loo xam ne lu rafet lay doon wala lu neex lay doon waaye tamit yow ku jigéen ki wala yow ku góor ki tamit bu fekkee bëgg nga say doom baax tànnal leen yaay ju baax tànnal leen yaay ju am diine soo takkee soxna soo xam ne yaramam yaa waa mbedd mi yéen a koy bokk li gën a danger si kaw suuf jigéen boo xam ni sa yaram sa borom kër ak waa mbedd mi ñoo koy bokk la muy gis ci yow daanaka lu tuuti rek la la nga nga gis ci moom te waa mbedd mi duñ ko gis ci moom te xam ngeen ni jigéen yàlla ni mu ko bindee daf ko bëgg daf ko fonk bëggul sax naaj bi di tàpp ci yaramam directement parce que daf koy indil ay feebar ak ay lor yàlla dafa bëgg jigéen fu mu toll ñu xam ni kii jigéenu jullit la zalika adna an yu'rafna fala yu'dayna la yàlla wax col gi la islaam sant daggal la ko nga war koo sol yow bu ko góor ki bay tànn soxna xoolal kuy soloo noonu ñaare damay wax ni jigéen bu fiirul ci boppam pour mu fegu dina ko jafe lool jigéen bu fiirul ci boppam nooy fiire sa bopp man du ma nangu sama borom kër takk ma def ci man xaalis may génn sañse ba jekk maquillage faaru daal di jël loo xam ne samay ween day feeñ samay loxo day feeñ sama ndigg day feeñ sol loo xam ne say say yee sax du muur nga génn ci mbedd mi sa jëkkër jooju moom ñëpp la bokk yéen bi salaa salaam li mu ñu digal yàlla sax moo ñu ko digal mu ne jigéen booy génn muural say cër ba nga xam ne dara du feeñ lu dul saxaar kanam ak say loxo kon booy tànn soxna tànnal soxna su mel noonu nga xam ne dafay muur yaramam nga xam ne yow li neex ci moom ak li rafet ci moom yow rek yaa koy gis bu ñëwee ci biir kër gi nag solu ba jekk def tay baasam wala robbam wala lu mu mënti def nga xam ne yow jëkkëram rek yow yaa koy gis nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na góor dangaa war a fiir ku fiirul du dugg àjjana mu ne lan ñuy fiire mu ne dangay xool sa soxna buy dugg ak buy génn la muy sol ña muy waxal ñiy dugg ci biir kër gi ak ñiy génn tey boo gisee suñu kër yi li ko yàq góoru jàmbur yi dañuy dugg jaxasoo jigéenu jàmbur yi si biir kër gi borom kër yi duñu wax dara day mel ni dara xewul yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne jigéen du mu wéet ak góor goo xam ne mën na ko takk bu ñu wéet mu ne saa bu ñu wéetee seytaane moo leen di ñetteel saa saa bu jigéen wéetee góor goo xam ne mën na koo takk seytaane mooy nekk seen ñetteel jigéen du wéet ak góor bu ko mënta takk nga war a fiir ci ki nga xamante ni moom mooy say doom yi jigéen kon ku jigéen ki booy tànn soxna tànnal euh, ku góor ki booy tànn soxna tànnal jigéen boo xam ne bu ñu yar la waaye tey am na si xale yu jigéen yoo xam ne xale bu góor bu ñu romb xam nga bu njëkk xale yu góor yi ñooy classe jigéen bi waaye tey xale yu jigéen yi ñooy romb di classe xale yu góor yi xale bu góor bu ñu romb wax ak ñoom wax yu ñàkk fayda tàppante lëndëm gi nag boo ciy dox sa yaram day daw boo juree doom bu jigéen amatuñu kersa suñu doom yi jigéen yi ndax la amatuñu kersa bu njëkk jigéen bu fekkee soo demee ba majeur yow boo taxawee xale bu góor di wax ak moom rek yaakaar nga ni parce que loolu la ñuy yaree woon sa yaay danaan la xale bu jigéen xale bu góor bu la laalee rek mooy ëmb nga yàq nga da ngay daw xale yu góor yi comme ni ngay dawee loo ragal parce que da ngay dafa am jigéen dafa am loo xam ne mooy teraanga bu nekk ci moom loolu la ñuy wax sharaf teraanga boo xam ne daf ko judduwaale teraangaam boobu jëkkëram moo ko war a njëkk xam ci moom saa boo ko joxee ci àll bi rek yàq nga si teraanga àdduna ak àllaaxira jaratoo dara moom jigéen saa boo joxee sa bopp ci àll bi ci mbedd mi jox ko góor boo xam ne sa jëkkër yow moom teraanga moom amatoo ci dara yàq nga sa bopp fii ci àdduna yàq nga sa bopp ëllëg xanaa nga tuub yàlla jéggal bi kon booy tànn soxna tànnal jigéen bu ñu yar te damay wax sama doom yi jigéen ñi ne leen góor ñi dofuñu buñ mën nañoo ànd ak yow di foog yow di def ak yow lu nekk di dem ak yow fu nekk bis bu ñuy takk soxna ka ñuy yar te mu toog ci wetu ndeyam kooku la ñuy takk ndax ku sañoon ki ngay dugal sa biir kër ku baax lay doon kon xale yu jigéen ñi bu ñu ñàkk fayda waaye góor ñi tamit bu ngeen di takk soxna takk leen jigéen boo xam ne dañ koo yar yéen bi salaa salaam daf ñu tànnaloo woon bu ñuy takk soxna kan la ñuy takk mu ne booy takk jigéen mu ne jigéen dañ ko takk ndax ñeenti mbir ñaare daal li comme yéen bi li mu wax jigéen boo gis ñu takk ko ñeenti mbir moo tax ñu takk ko bi si nekk mooy li maalihaa léeg-léeg góor dafay takk jigéen ngir alalam suñu jamono ji yàqu na yàqu goo xam ne da ngay dégg sax xale yu góor dañ naan man du ma takk cas social kuy liggéey la ñuy takk wala ku ay famille am dara te damay wax ni ñu baal ma loolu lenn li ak ñàkk jom la ndax jigéen moo waroon a liggéey góor moo waroon a liggéey teral jigéen waaye léegi dañuy xaar jigéen ñi di liggéey teral góor ñi parce que jigéen ñi tamit ñoo ko nangu dañu leen a togloo woon ci kër gi ñii buuxante ci mbe- usines yi di buuxante fépp pour lan ne dañoo bëgg a tekki dañoo bëgg a am su ko defee bu góor gi bu ñëwee neex nos sa xaalis xaalis bu jeex mu bàyyi la fa dem ci keneen te góor moo war a yor jigéen moo ko war a teral moo ko war a dundal moo ko war a dëkkal moo ko war a dëkkal loolu góor bu ko mënalul jigéen rek daanaka moom sëy bi doo- du nekk loo xam ne lu neex lay doon yéen bi ne alal dinañ ci jigéen góor dinañ def ci jigéen ngir lan ngir alalam soxlawul lu dul alalam kese mu ne wala li jamaaliha wala taaram jigéen ji rafet loolu amul sax jikko bu rafet mais yow taar bi rek convaincre na la nga takk ko waaye gis nga boo takkee jigéen bu mel noonu ba yóbbu ko sa kër léeg-léeg di nga di nga dem ba taar bi dalay sax leneen ndax jigéen lu mu rafet rafet te jikko ji rafetul dina la mbugal parce que jikko mooy nit taar nee nañ boo ñaawee mu jeex booy jooy mu jeex boo màggatee mu jeex mais jikko li nga xam ne booy sangu doo ko simmi loolu la góor war a xool si jigéen jikko bu rafet kooku dina la muñal dina la toppatoo dina toppatoo say doom ba si say waajur ak say famille waaye jigéen bu amul jikko bu rafet du mun a say say bu rafet parce que jikko ja mooy tax kon yéen bi salaa salaam mu ne léeg-léeg jigéen dinañ ko takk ngir taaram waaye amul muñ mu ne léeg-léeg tamit jigéen di ko takk ngir lan askanam diw de ci famille sàngam la la la bokk rek tax nga takk ko bu doon loolu rek kon mu yomb bu doon ku juddoo kër diw rek da ngay baax da ngay yaru kon mu yomb lool mais waxoon nañ leen sànq léeg-léeg guri dina jur fa tax léeg-léeg nga dégg ñu ne kii dama koy takk ndax ci famille bu rëy la bokk wala ci yax bu rëy la bokk ndax Golbert Diagne nee na yax bu rëy nañ dem armée ñu xool ba xam ndax dina fa joué rôle am déet du fa joué benn rôle amu fa ko amu fa amu fa eh, njariñ te lo- loo xam ne yow eh, nit ki ak foo mën a bokk ak mu noo mënti mel juróom-ñaari mètre percal moo lay mujje amul leneen lu lay mujje ñëpp a yem ci yàlla li tax nga xam ne ñëpp a yem ci yàlla mooy kenn ku dee lañ lay defaree ak keneen ku dee ku am alal ka ak ku amul alal ñoo yem ni leen di defaree juróom-ñaari mètre percal rek buur ba ak baadoola ba ñoo yem ni leen di defaree bu ñu génnee àdduna sëriñ bi ak taalibe bi ñoo yem ni leen di defaree bu ñu génnee àdduna kon ñëpp a yem ci yàlla gis nga askan baax na de waaye du sëy sëy jikko ju rafet na yéen bi salaa salaam nag daal di ñuy digal nag mu ne booy tànn soxna tànnal borom diini fabu far bi zaati diini taribat ya daaka mu ne tànnal ku am diini soo ko tànnee rek yow gañe nga yow raw nga say maas ku am diine dina ragal yàlla te nit te jigéen su ragalee yàlla du la mooy du la tontu dina la liggéeyal dina la dina la defal dina la bànneexal waaye jigéen su ragalul yàlla lu ko neex lay def yaakaarul ne yàlla dina ko xisaab ëllëg yow ma xiyaam amul diine lu ko neex lay sëy te xam nga ni góor buy tànn soxna di ko takk pour soxna si bu ñëwee defar këram moo tax liggéeyal ko moo tax imaginer nga dem liggéeyi sonn ñëw soxna si ñëw mën a dem liggéeyi sonn gën laa sonn ku lay bànneexal te jigéen li doon cosaan mooy mu toog ci biir kër gi toppatoo njaboot bi xoolal suñu sang bi Fatima radiyallahu anha doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu sëyee kër Aliyu kër bi muy sëyi benn basang la am boo xam ni xobu tàndarma lañ ko lañ ko ràbbe xam nga tàndarma kii dafay dafay gudd moom lañ ko ràbbe ak benn njegenaay ak benn njaq ak benn ndaa loolu la amoon mo- comme matériel bi muy sëyi bi mu demee benn sër la ñu am bu ñuy sàngoo moog Aliyu bu ñu sàngee ci kaw seen tànk di feeñ bu ñu sàngee ci suuf seen seen kanam di feeñ mu nekk fa liggéey nag ba sonn day fóot day togg day raxas day dem ci àll bi foru ndéef bi nga xam ne moom la ñuy toggee di yenu benn bis Aliou daal ne ko Fatima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na xeex yi ñëw indi na ay jaam te ngaa dem ñaan ko ci jaam yooyu mu ñëw jàppale la ci biir kër gi ndax liggéey bi métti na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Fatima radiyallahu anha bi mu demee nee na mu dem xool papaam mu xool ko mu rus ko ko ko wax mais yonent bi xamoon na Fatima ne bu ko am na lu muy defee rek am na lu mu bëgg yonent bi daal di bàyyi ba Fatima ñibbi mu daal di ñëw fekk si leen këram mu ne bi mu ñëwee mi ngi fekk ñi ngi sàngu seen tànk yi bàyyi seen bopp yaa ngi fay ndax malade bi jarul ci kaw ja- ja- ja- jotul ci kaw bi mu ñëwee toog Fatima ne ko man de ñëwoon naa ko sànq mais li ma la bëggoon wax dama ko rus mu ne ko papa man de damaa root ba sama loxo yi bu baag bi muy xëcc nii sama loxo yëpp dafa dagg mu ne ko damaa yenn ba sama digg bopp bi amatul karaw ndax yenn bu metti togg naa ba sama yëru yëpp lakk na ñuul na ma bëggoon rek nga may ma ci sa jaam yi ñu may dimbale ci liggéey bi te loolu kan la ko doon defal borom këram am na yént bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xaaral ma wax la lu gën jaam mu ne ko balaa ngay tëdd waxal subhanallah fanweeri yoon ak ñett waxal alhamdulilah fanweeri yoon ak ñett waxal allahu akbar fanweeri yoon ak ñett loolu moo gën jaam ak li ci biiram moo gën àdduna ak li ci biiram tey xoolal ñun dund bu neex bi ñuy dund am jànq bu lay defaral lépp léeg-léeg booy sëy si dinañ la am ku ñu la booleel léeg-léeg mu lay defaral lépp te teewul nga mën a bànneexal sa borom kër kon damay wax léeg-léeg day wax sama doom yu jigéen ñi ne leen sëy moom daanaka amatul mag suñu mag ñi ak suñu yaay yi ñoom ñoo doon sëy kaara dëggantaan daan yenu affaire yi di ko yóbbu donte kon àdduna dafay changé bu àdduna changé gën a yomb kon sëy bi dafa war a gën a yomb dañ ko war a gën a neexal te loolu li la koy may ci jigéen mooy nga takk jigéen bu am diine jigéen su amee diine soo ko takkee bu ñëwee day xam ne yow mi ab sangam nga waaye doo moroomam parce que góor sang la góor rek la yàlla wax ni la yent bi salaa salaam wax ni jigéen su génnee àdduna borom këram gërëm ko mu dugg àjjana ayuma imraatin maatat wa zawjuha anha raadin daxalatil janna jigéen waxuñu la boo dee sa bàyyi gërëm la wala sa yaay la sa jëkkër mu ne jigéen boo xam ne génn na àdduna borom këram gërëm ko day dugg àjjana kon nag war ngaa farlu yow ko jigéen sa borom kër boobu waaye yow ko góor ku booy takk takkal ko am diine boo xam ne bu ñëwee dina la yërëm dina la sëyal dina la mën a yaral say doom yar boo xam ne yar bu rafet lay doom bëri na li ñuy jooy ci kër yi tey li koy indi mooy dem takki soxna soo xam ne bu soxna su baax te xam nga yàlla dañoo digaloon koy mu ne boo amee sa gàncax di ko di ko ji wala sa tepp di ko ji ji ko ci suuf su baax si nangu soo ko deful rek yàq nga ko wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbihi waaye wala bii xabusa laa yaxruju illa nakida yàlla mu ne gis nga suuf su baax meññeentam dafay génn dafay naat dafay rafet ngir ndi si ndigalu boromam. mu ne waaye suuf su bon àll boo fa demee sën boo fa demee nga ji fa mën naa génn dugub bi mën naa sax de mën naa màgg mën naa tóortóor mën naa rafet génn ay fleur mais du am tepp bu baax. ñu ngi moo loolu mooy jigéen rek boo tànnee si askan bu baax jigéen bu baax bu ñu yar kooku say doom day baax am nga chance pour say doom baax waaye boo demee tànn jigéen bu bon def fa sa jiwu boobaa jigéen bi bu fekkente ne ku bon la am nga tamit mille chance mille mal chance pour sa doom nekk koo xam ni bu bon lay doon sa doom du mën a baax kon góor booy tànn sa yaayu doom tànnal jigéen bu baax soo amee mu muñal la soo amee soo ñàkkee soo ñàkkee mu muñal la soo amee mu sant la tey ñaata ci ay góor ñoo takk ay jigéen dem ba amatuñu ñu bàyyi leen fa dem seeti keneen ko am parce que du parce que baaxu baaxu tànn bi moo borom ñaata ci ay jigéen tey ñoo jur seeni doom di leen cagatuloo ndax dama ni jigéen bu fekkee dangaa am sa doom bu jigéen mu nekk ci kër gi nga ne ko yow danaa war a fay ndox wala nga war a fay courant wala nga participer si dundu kër gi te moom liggéeyul deful dara kooku yow yaa ko génn uti loolu leneen doom bu jigéen da nga koy yar yiir ko mu nekk ku baax nit nit ñëw bëgg ko daal di koy takk kon booy takk jabar takkal jigéen boo xam ne bu baax lay doon moom rek si nga mën a amee doom bu baax léegi nag boo takkee soxna ba takk ba nga am doom jigéen boo xam ne bu baax la yow ku góor ki tamit yow ko jigéen bi tamit nga tànn borom kër boo xam ne bu baax la kooku bu ngeen amee doom doom ji dafay neex a yar su ngeen ko yaree yar bi dafay nekk yarub jullit dafa am benn xale ndeysaan papa ji buur la xale bi juddu papa ji di ko teral di ko di ko jox mu lekk di ko jox mu naan lépp lu mu bëgg rek papa ji di ko gate benn bis mu toog seen kër di déglu imaam bi di jàng di jàng yaa ayyuha yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha annaasu wal hijaara fii aaya bi ñu ubbee woon te yàlla naan yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla fegal leen seen bopp safara ak seen njaboot safara soo xam ne nit ñi lañ koy xambee ak xeer yi xale bi bi mu déggee loolu mu jooy daal dem ci papaam ne ko papa dafa am benn kër bu tudd safara mu ne ko waaw mu ne ko dafa am kan ñen ñoo fay dugg mu ne ko xanaa ñu bon ñi ñi nga xam ne jaamuwuñu yàlla waaye tamit am na kër gu baax gu tudd àjjana ku baax rek fa ngay dund yow lu tax ngay laaj loolu mu ne ko li ma dégg imaam bi di wax léegi mu ne yàlla nee na fegal leen seen bopp safara ak seen njaboot safara soo xam ne ay nit lañ koy xam ne ak i dëkk mu ne ko man nag papaam nag waaye yow xale nga mu ne ko xale laa mais damaa xam ni xale yi nga xam ne topp ñu yàlla wala judduwuñu si yoonu yàlla boo matul ñoom la ñuy xambee safara soosu ëllëg ndax damaa gis sama yaay buy boyal matt yu ndaw yi lay njëkk a jël teg ko ci fourne bi door a jël matt yu mag yi teg ko ci xoolal xale bi fu muy xalaatee loolu la noo ko may yaay ju baax ak baay ju baax ñoom ñoo la mën a may doom ju baax waaye yaay ji bu baaxul baay ji baaxul doom ji fan lay jëlee baax bu ko yàlla dimbalewul léeg-léeg nag mu nekk doom yàlla may ko ko mawhiba mais du nekk loo xam ni yaay ji ak papa ji ñoom ñoo ko def ci moom kon pour nga yar sa doom yow yaay ji ak papa ji tamit il faut ngeen am jikko yu rafet xale boo koy yor yar dafay aajowu nga am jikko yu rafet yoo mën a yaree sa doom mi ngi mel ni rek tey ngay jaayi sa marchandise bu baaxulee kenn du ko jënd fa lañ koy bàyyi li ngay jox nit ñi dafa war a baax kon yow li ngay jox sa doom dafa war a nekk ci yow ba pare yow papa mënoo tere sa doom tux ba pare ngay tux mënut a nekk mënoo tere yow ku jigéen ki mënoo tere sa doom fen ba pare ngay fen te sànq ñu ngi leen di wax ne xale bi lu ëpp li muy def ci yaayam ak papaam la koy gisee da ngay xool xale yi tey bu ñuy fo bu ñu beral seen pain di fo seetlu leen rek bu ñuy fo affaire mag la ñuy fowee ni seen papa ak seen yaay di def ci kër gi rek loolu la ñuy def bu dee papa ji dafa soxor day gis xale bi day jël ay dàll teg di dóor et toog leen benn place et def leen nii ñun ñi nga xam ne dañooy yar é- école di jàngale dañuy seetlu yooyu xale bi da ngay gis li muy fowee noonu lañ koy yare ni ñu ko yare rek noonu lay fowee leneen la nga gis xale boo xamante ni dafay kuul nga xam ne kii noonu lañ koy yare moo tax yaay ji ak papa ji war nañoo am jikko yu rafet parce que doom dafay copier ci yaayam dafay copier ci papaam te imaginer sa doom juddu yow yaay ji mosula dégg nga wax baat boo xam ne baat bu ñaaw la mosula dégg nga saaga bu génnee ci mbedd mi bu déggee ku saaga sax dafay tiit waaye tey ñun yaay yi ñooy jàngal suñu doom yi saaga am na si ñoo xam ne bu ñu daggalee seen doom rek yow da ngay tax sa génn yaay bu jur doom nan la ko mën a tiime daggal ko saaga yaa ngi ko koy jàngal te yëgoo ko bu génnee tamit day saaga mbedd mi saaga bari fi ñëpp di saaga mais imaginer bu doon xale yi dégguñu benn saaga ci kër gi kon bu ñu génnee duñu duñu mën a saaga mais yaay ji mooy njëkke saaga yaay ji doom ji day juddu gis yaayam di fen léeg-léeg nga dem fenn sa jëkkër ñëw man na génn ma woon wala fii rek laa nekkoon wala def ma woon te xale bi leer na ko ne yow demoon nga yaa ngi koy jàngal fen te yow bàyyi woo ci fen su ko defee xale bi day def ne loolu garaawul te gis nga balaa muy dem école am na jikko yoo xam ni ci biir kër gi lañ ko ko war a jàngale balaa muy dem école te jikko yooyu yow yaay ji soo ko amul doo ko mën a jàngal arab yi dañuy wax ne faaqidu shay'in laa yu'tiihi li nga amul mënoo koo joxe li nekkul ci yow mënoo koo def ci sa doom bëri na doom yu màgg tey xarab seeni wayjur nañ leen yàlla la kon yaay ji ak papa ji il faut ñu am jikko yu rafet il faut ñu nekk ñoo xam ne tamit dañuy am xikma xikma mooy lan dañuy xereñ xereñ mooy lu nekk fu mu war a teg nga teg ko fa doom ji jarul yuuxu gis nga yar sa doom jarul yuuxu jarul ay yar jarul dóor parce que yow yaa jur sa doom du mu nekkee liir di door a judd mun ta wax te bu bëggee lekk yow di nga fexe ba xam ne kii dafa bëgg a lekk su couche bi tooyee di nga xam ne kii couche bi dafa tooy nga dem changé ko yàlla moo la may xikma moom yow jigéen kon yow war ngaa mën a xam sa doom fan ngay jaar ak moom ba mu yaru te doom saa boo koy dóor tàmmal ko ay dóor di nga mën naa am mu yaru ndax dóor yooyu mais du yaru ci biti parce que bu la gisatul rek ngay def li nga koy sant li nga ko li nga koy tere doom man damay wax ni en tant que yarkat man li ma gis mu gën a mun a yar xale mooy ngay waxtaan ak moom gis nga xale bu am 3 ans jëm kaw sooy waxtaan ak moom yow yaay ji bul jàpp ne xale bu xamul dara ngay waxal xamal ni jàppal ni kii ngay waxal mémoire bi dafay capté léeg-léeg ñun ñii di nekk mag nga togg mu yàgg sa xel dem ci benn wax bu la sa yaay waxoon wala sa papa daf lay ragal loolu doo ñemee def ko bon. parce que mag ñi noonu lañ daan yaree seeni doom di leen yedd waaye tey li may wax sama doom yi jigéen ñi xale yi rëkk rek dóor saaga xas gëdd xale bi bu la gisee di pat pati mais su la gisul du def li nga ko wax. wala bu nekkee ci mbedd mi def lu ko neex bu ñëwee nag pat sa kanam yow doo xam ne xew xale yar ko jarul jarul yenn yi danga koy neexal bu jaree neexal bu jëree yedd nga toog yedd ko gis nga am na nooy yeddee sa doom surtout xale yi nga xam ne dañoo toll ci li ñuy wax sinul muraahaqa ñu dem ba am 13 ans 15 ans 16 ans foofu la doom gën a naqaree yar soo deful attention sa doom daf lay bañ daf lay eenal te li nga bëgg ci moom doo ko am dafay féetteerlu parce que âge bi muy toll la âge boobu âge boobu nag euh, surtout doom yi jigéen ñi yaay yi fa lañu war a gën a fexee yar seeni doom si jikko yu rafet te li may wax rek doom yi dañuy copier ci seen yaay dañuy xool ci seen yaay dañuy xool ci seen i papa man gis naa xale bu jigéen boo xam ne mu dem ne bëgguma sëy yi ndax sama yaay ak sama papa dañu nekk ci biir kër gi xuloo xeex waxante lu ñaaw te jigéen da nga daan bëgg a gaaw sëy ndax sa baay bu ni muy toppatoo sa sa sa yaay nga ne damay sëy ndax ma am borom kër bu mel ni sama papa damay sëy ndax ma mën a baax comme sama yaay ni mu baaxee parce que ay exemplaire la mais bu ñu melul noonu yow dañ lay ragal lool dañuy dem ba yow société bi ngay dund dootoo ko bëgg dara yow doom ci am na doom yoo xam ni ñi ngi dugg ci seen biir kër yaay ak seen kër papa bëgguñu fa dara ndax histoire bi waxante lu ñaaw yi méttal bi ñuy méttal seen yaay ci kër gi wala ñàkk a toppatoo bi ñuy ñàkk a toppatoo seen papa ci kër gi moo tax doom dañuy wax ne nawle la jëkkër sang la mais doom nawle la danga koy yar yar boo xam ne yar bu rafet lay doon ñu yar leen ci li nga xamante ni moom mooy dëgg ñoo waxoon sànq mbokk yi dëkk bi tas na ndax kenn dëkk bi da ngay jël sa portable yor sa euh, WhatsApp fen say fen ràbbale ko mu neex nga tasaare ko nit ñëpp tasaare ko xale yi léegi defe nañ ni fen nekkatul dara parce que dafa yomb euh, communication mais communication yi nga xam ne moo xew léegi ci jamono waroon a defar nit ñi dafa dem ba commencé di yàq jikkoy nit ñi xale bi day toog yar portable am nga dégg fen boobu du du xam sax ni lii fen la wala dañu koo war a moytu li may nettali toujours rek benn audio bu ma mosoon dégg audio bu dafa ma choqué daf maa daf maa bett man ndaw si di nettali te xale bu jigéen la amagul sax borom kër damaa dugg ci biis jël sama saak jox ko benn mère mu téyel ma fekk xaalis moo ci nekkoon deux cent mille léegi ma daal di dikki dikki laaj ko mère bi ma ubbi gisuma xaalis bi ah may jooy ñi daal may yóbbu police di nettali ba sa yaram di daw yow mu wax wax ba ci feebar bu daan ni dama doon nelaw nag dama doon gént li may wax def ay gént loolu du ay fen ñu def nit ñi di ko paasante di reetaan te gis nga léeg-léeg nga wax baat boo xam ne yàlla na tahsabuunahu hayyinan wa huwa inda Allahi aziim da ngay jàpp ne li nga wax lu ndaw la lu oyof la fekk lu rëy la ci yàlla. tey WhatsApp bi mënatoo xam ne luy dëgg ak luy fen mën naa ne li ñuy li ñuy siiwal booy xool 90 pour cent li si ëpp ay fen lay doon. Facebook bi Facebook bi noonu yeneen réseaux sociaux yi noonu ñu jàngal xale yi ay fen xale yi tamit daal di miin loolu màgg ci loolu dëkk bi fen daal di koy yàq. te xam ngeen ni fen bu bëree ci dëkk yërmaande dootu ko wàcc yàlla dina mer-mer moo xam ni yërmaande dootu wàcc ci dëkk ba taw dootu ko wàcc kon ñu war a yar xale yi ci dëgg yar leen ci wax dëgg bo gis nga sa doom jàngal ko wax dëgg ci bi mu nekkee xale su defee dara boo ko enquêté ba xam ni moom la bu ko dóor sax jour boobu ne ko damaa kontaan ndax parce que damaa wax dëgg su ëllëgee day ñëwee wax dëgg waaye léeg-léeg li tax xale yi di fen ca nañ leen di yaree la jàngal leen li nga xam ne moom mooy muñ damay wax ni suñu doom yu jigéen ñi ñu bari mënuñoo sëy ndax mënuñoo muñ parce que buñ li leen yaree ci biir kër gi yaruñu leen ci muñ dañ leen a yar ci bànneexal leen yar leen comme ni ñuy yaree bàyyi ma jox leen ñu lekk jox leen ñu naan xotti leen yére yu rafet ñu sol duñ leen xañ dara lu ñu bëgg ñu defal leen ko léegi nag xale bi bu màggee ci loolu ba am 15 ans 16 ans 17 ans war a sëy xam mus na jaar ci naqar mus na jaar ci ñàkk mu sa jaar si lu naqari kooku du mën a sëy parce que ku muy fekki danaan ah man daal dem nga de nga ne man li ma bàyyi sama kër yaay ak sama kër papa sax moo gën a neex sëy bii may sëy te xam ngeen ni sëy muñ la sëy ku am alal ak ki ñàkk ci yem sëy muñ la parce que ñaar doomu aadama yuy ànd moo neexul yenn neex yi ba nga xamante ni dañ fa am bànneex total di nga fa am bànneex de mais li ci ëpp muñ lay doon xale bi nag bu mënta muñ jàngaloo ko muñ yow yaay bi xale bi su demee sëy yi du mën a muñ xale bu góor bi bu demee ba toll ci mën a am soxna du mën a muñal soxnaam ndax lu ko neex rek lay xam bëri na si ay góor xale yu góor yoo xam ne lu leen neex rek lañ xam xamuñu métit xamuñu muñ léegi da nga am jigéen boo xam ne soo waxee léeg-léeg mu tontu la dóor rek nga cee xalaat parce que man du ma sa morom morom maa yëpp kon xale bi dañ koy jàngal muñ ci mu nekkee xale léeg-léeg mu bëgg dara nga am ko mu ñaan la ko nga xañ ko ko xamal ko ni yow am na ñu la jiitu woon ñoo xam ne tey jii yàlla gërëm na leen dañoo mënoon a muñ moo tax yàlla gërëm leen ñu daan xeex ci yoonu yàlla di nekk ñoo xam ne ay jihaadkat lañu woon xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na xeer xeex boo xam ne ki ko jiite xare bi fukki at ak ñett la am tey ñaanuñu ko yàlla mar détaillé bu xeex amoon xale yi dañuy daw parce que dañoo ragal dañ leen a yar yar tàppet xamuñu ko xamuñu coono xamuñu fitna xamuñu naqar xamuñu leen lu neex rek la ñu xam te xale danga koy yar ci muñ muñ rek moom la yàlla di fay ëllëg yow ma la ko yàlla du rek la borom innama yuwaffa allahu sabiruna ajrahum bi xayri hisaab mun a muñ moo la koy may mais léeg-léeg ñu yar la yar boo xam ni doo am patience doo mun a muñ léeg-léeg nag yaay yi am na si yaay yoo xam ne bu ñu lay yar danga naan sama yaay ji dafa suxoon daf daf maa daf maa bañ bëri na ay xale yu doon wax tey suñu yaay daf ñoo bañ bi ñu màggee la ñuy door a xam lan la taxoon seen yaay di sonn si ñoom ñii di leen xañ yenn yi di leen tàmmal yenn yi waaye xale fu mu xiifee lekk na ba suur fu mu buggee xaalis nga jox ko du banque léppam yomb bu màggee bu mu mun a muñ muy jafe lay doon beneen bi ñu ja- yar xale yi ci tabe tabe moom booy xool dama naan dafa xaw a mel ne lu jeex ci àdduna nit ñi tabeetuñu léegi xale bi bi mu nekkee xale nga koy jàngal soo amee mburu boo gisee taalibe daggal xaajal nga may ko nga saraxe ko soo gisee ku ñàkk wala kuy yalwaan jëlal si xaalis yow si yaay bi nga jox sa doom mu saraxe soo gisee kuy yalwaan nga di ko def di dimbale nit ñi moom mu koy xool xam ngeen ni islam diiney dimbalante la diiney tabe la diiney mbaax la nit danga war a nekk koo xam ne danga tabe ba pare yar ci say doom léegi suñu jamono yi boo xoolee li xew ñi am ñi am la ñuy may di leen jaral seen jal di gën a yokk ñi amul kenn faalewu leen kenn faalewu leen duñ leen sax nawloo duñ leen sax toppatoo te pourtant yéen bi sallallahu alayhi wasallam nee na gis nga ñi ñàkk ëllëg yowmal xiyaam ñooy ñooy njëkk a dugg àjjana ñi ñàkk ñooy njëkk a dugg àjjana kon xale bi nga war koo yar ci muy joxe muy saraxe nga xamal ko yow yaay ji ak papa ji tiyaaba yu bari yi nekk ci saraxe am na xale yoo xam ne tey bu seen yére gàttee sax boo ko mayee ñuy jooy du ñuy bëggee parce que noonu lañ leen yare am xale yoo xam ne nag lu ñu am joxe ko parce que noonu lañ leen yare bu yéreem gàttee nga ne ko ah lii de dafa laa gàtt dépp nga mayee ko léeg-léeg sax mu am ñaari yére nga ne ko jëlal benn bi nga jox ko sa diw ndax moom amul benn la am loolu boo ko yaree sa doom rek joxe du ko du ko jafe te xam ngeen ni joxe rek la jullit bi di génn àdduna ñaan yàlla ne yàlla delloo ma ci àdduna may gën may joxe may saraxe ndax bu ñu de bu yàlla bu la yàlla reyee nga gis li nga daan joxe dañ koy jal mu nekk ay montagne nga ne yàlla tiyaaba yu bari yi fan laa ko jële mun a li nga daan joxe te yàlla rek tax su ko defee da nga naan yàlla delloo ma ci àdduna fa asaddaqa wa akun min as-salihin may saraxe ma continue di saraxe ma nekk ku baax soo teewee doo yàlla delloo ma mu julli wala ma woor déedéet delloo ma àdduna pour leen pour may saraxe kon xale yi nañ leen di tàmmal joxe bañ leen a tàmmal tamit ñaan jikkoy ñaan gis nga xale boo ko tàmbalee ñaan ak di ko yónni di ko àbbuloo di ko lebloo di ko ñaanloo dafay ñàkk jom te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loxo bi féete kaw moo gën bi féete suuf maanaam biy joxe moo gën bi nga xam ne dafay tàllal di ñaan ñu jàngal leen liggéey ñuy ñaqal seen bopp di jariñu mais xale bi bu fekkente ne yow yaay ji nangu woo tàng papa ji naka noonu foo toll yaa ngi leb yaa ngi abbu yaa ngi ñaan donte kon mënut a ñàkk si dundub doomu aadama mais nga tàmmal ko sa doom danga koy tàmmal yaa fuus bu fekkente ni mi ngi jàng baax na bu jàngut bu fekkee yàlla dogalul mu jàng même bu dee gerte caaf laxasal ko ko mu jaay mu xam ne nit dafa war a am njariñ ci société bi même bu fekkee poobar ak sobleeg yooyu nga jàngal ko mu jaay tey boo xoolee suñu dëkk bi li tax mu gën a néew doole li tax ñàkk gi gën fee bari mooy suñu jeunes yi nanguñu liggéey tey jii sa doom bu tool bu bàyyi woon jàng nga ne ko jëlal sa poobar ak yooyu dem sa marché ba wala nga jël sa pousse-pousse dañ naan la loolu susu yi ñoo koy def wala ñu ne la pël fuute yi ñoo koy def daal di toog moo tax ñooñu loo ci gis bu ñëwee seen dëkk ay patron la ñuy doon liggéey yi ñuy liggéey suñu doom yi ñoo ko waroon di liggéey bu fekkee amuñu leneen lu ñu def waaye dañuy bañ tàmm yaa fuus loolu nag yow yaay ji ak papa ji yaa ci yar sa doom jéem a dugal ci boppam ne ko suuf métier amul yonent bi salaa salaam mu ne kenn si yéen mu dem ca àll ba format gor ko jaay ko moo gën fuuf muy ñaan nit ñi moo xam dañ koo may moo xam may ñu tey ban xale yi nangoo jël matt dem di ko jaayi amul muy sama doom ak doomu keneen a ci yéen surtout nag xale yi nga xam ne ñoo dëkk Dakar gii ñu nekk xale yi jigéen dëkk dëkk kaw yi sax ñoo tane ci foofu da ngay gis ñoo xam ne ñuy ñëw man gis naa xale yoo xam ne Saalum lañ jóge ñëw Dakar di liggéey di xos bi daan seen doole ba tabax seen i kër léegi indi seen i wayjur te xale yi juddoo Dakar ñu fekk leen fi amuñu sax baraak wala pante parce que ñooñu bay ñëwee liggéey yi ñuy nangoo def ñun suñu xale yi duñ ko nangoo def wéeru ci yaay papa rek bu ñu xëyee jox la ndékki jox la añ jox la reer léeg-léeg sax ñu jëndal la attaaya te ngay góor waroon a ñafe ji bu ñu waxee ñu ne nit métti amul man leen liggéey am na xanaa kay taamu moo am taamu moo am mais góor sooy dox ci territoire bi gis xale yi di jaan seen doole di di di jaay da ngay jënd si ñoom sax te soxla wala nga jënd ndax bëgg li ñuy def ak naw leen ak fonk leen nga dem feneen gis xale yoo xam ne taxawaal sàcc siif yi fi jàmm moo leen gën a lépp dëkk bi li tax mu ñàkk sécurité bëgg a tekki te doo am jël portable jàmm dem jaayi ko am xaalis ñëw def sa yaay mu kontaan xamul fi ñu ko jëlee moo tax doom danga koy jàngal mu nekk koo xamante ne ni da koy joxe waaye bu ko tàmbal ko tamit mu bañ a nekk ku yaafuus mu nekk koo xam ne ku am njariñ lay doon ci société bi beneen bi ñu jàngal leen kóolute kóolute tamit jikko bu raar la ci suñu jamono ji ñu toll kenn warootul kenn dëkk bi tas na jëkkër ji nga dëkkal sax léeg-léeg doo ko wóolu jabar ji nga nekkal ci biir néeg sax léeg-léeg doo ko wóolu kóolute amatul ci kaw suuf te xam ngeen ne loolu musiba la tey koo dénk secret boo moytul boo génnee fekk ko ci mbedd mi koo wax lenn yow moom ñàkk nga ko dangay weeru koo dénk xaalis mu lekk ko boo defee ne sa jeu ya tey ku ñu dénk kees gi boo moytuwul kees googu day daanu da koy lekk parce que lan dañoo yarul doom yi ci wóor ak jub xoolal suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam waa Màkka li ñu ko doon bañ bañ bañ te ñoom ñëpp dañoo mànkoo woon tuddee ko al amin ku wóor ki ndax noo ko dénk nañ ko ko dénk noonu la koy tege ba nga ñëw mu daal la koy jox tey da ngay am sa xaalis dajale ko yóbbu ko ci benn banque boo xam dafa nekk ci marché bi wala ci koñ bi dañuy jékki-jékki rek dootoo gis banque boobu mu tëj ñu lekk xaalis ba yow nga doon xos di ñàkk loolu ñaata yoon lañ lañ ko dund ñu lekk defe ne nag ñoo ci lekk defe ne nag léegi la yow tekk nga yow daw nga ak xaalis ba raw nga te xam ngeen ni raw amul ndax yàgg yàgg danañ tasee sa borom bi subhanahu wa taala tey sa borom kër ba lay dénk xaalis yow ku jigéen ki nga sàkkal ko pexe mu ñëw di la ko laaj ngay laaj ci daadaa mënu laa dóor mënu laa def lenn wóor jub amatu doom danga koy jàngal wóolu nga gis jigéen ñoo xam dañuy liggéey man gis naa jigéen bu liggéey xaalisam mu lew ko doom mu jox borom këram mu dem takki ko beneen jabar kooku daal di boole li ko neex ak li ko naqari commencé waat à zéro ana jub ana wóor te ñu dañoo bëgg a yar ay doom yoo xamante ne dañ leen di yar ci jikko yu rafet dañ leen di yar ci ñu nekk ñoo xam ne ay exemple la ñuy doon ay modèle la ñuy doon kon xale bi il faut nga yar ko ci jikko bu rafet mais yow mi nga xam ne si wóor yow mi nga xamante ne yow yaay waajuram yow yaay njëkk a nekk koo xamante ne da ngay wóor beneen bi xale yi ñu yar leen di leen surveiller man de nee naa xale yu jigéen ñi ku doon xool seen portable yi musiba rek ngay gis parce que duñ leen surveiller da ngay tëdd nii ci kaw lal bi dend ak sa yaay fekk yaa ngay farante yaa ngay wax lu la neex ci portable bi sa yaay moom tëdd rek di nelaw léeg-léeg dañuy war a am fit ñun yaay yi jël seen portable yi ñu tuddal ñu seen code ñu xool contrôlé leen yaakaar naa temps yi la am na papa benn papa bu ko defoon ba mu gisee portable doomam dafa xëm parce que yaakaarul ne doomam bu jigéen ñeme na lii te xale yi ñeme nañ loolu loolu ci portable yi parce que léegi mbon dafa yomb fi nga toog ngay toog di ko def te gis nga sa yaram bii yow ku jigéen sa der bii saa boo ko exposé ci réseaux sociaux yi yow moom xamul lu xam koy mujj sa photo bu demee nga yaakaar ni ki ñu ko jox lépp ko supprimer am na stock- euh, stockage boo xam ne fa lay des te mën nañ koo génne saa su ne loolu dañ cee war a yar suñuy doom yee leen ci ñu xam ne ñoom du ñu ay marchandise mais ay nit lañ yoo xam ne yu am valeur la surtout nag xale yi nga xam ne ñoom doo ngay tëdd seen i néeg damay wax ne waa Saalum lu ñuy def waa Dakar bëriwul lu ñu koy def waaye loolu lu baax la xale yu jigéen yi di bokk ak seen yaay néeg borom kër yi am seen néegi bopp seen i soxna di leen fa fekk parce que léeg-léeg boo bëgg sa doom bu jigéen néeg ba ba muy sëy am na yu bëri yoo xam ne du ko def ñu ne ko def sa kanam waaye imaginer sa doom bu jigéen moom isi ak néegam tëj buntam mën naa si ko di photo wu di ko wane am na fi mu bi doon seetaan fan yee si biir jamono di gis xale yi jigéen ñi di di xool facebook bi di waxtaan ak xale bu góor bi di leen nax di leen man jigéen laa comme yéen ñuy wanante ay awra ndekete kooku góor la mu dem publier ko ba seen yaay yi mujj am si ay problème yu dul jeex mënatuñoo génn ci mbedd mi léeg-léeg nga yaakaar ne ba nga foto woo kan ka jox ca moom lay yem mën na ko wan xaritam xaritam wan ko xaritam sa àdduna yàqu kon xale yu jigéen ñi nañ leen di surveiller ngeen yaay yi di am mat gu toll ni di leen xool fi ñuy dugg ak fi ñuy génn léegi duggatuñu génnatuñu portable yi rek di farantu ñi leen di nax di leen yónnee xaalis di leen si miikuloo di leen seyloo par whatsapp di leen seyloo par facebook ñu yàq seen àdduna yow yaay ji da ngay jaaxle ne xanaa sama doom ji kañ la mel nii kañ la yàqoo nii fekk bi muy yàqu mi ngi sa wet benn bis rek la ñuy joxante rendez-vous gisante xale bu góor ba yàqu mu ñëw tuddaat jàpp ñaam rek yow doo xam li xew fekk fa ñuy dajee mooy ca euh, portable ko kon nañu xool suñu doom yu jigéen ñi comme ni ñuy xoole suñu doom yu góor yi léegi xale yu góor yi dañ leen di tëddee ni ñuy tëddee doom yu jigéen ñi noonu la ñuy tëddee doom yu góor yi wala yaas bu baax di leen tëddee su ko defee jàngal leen li nga xam ne mooy ngóor jigéen si bi ñu nekkee xale yow doo xam li xew da ngay jékki-jékki rek affaire bi éclaté mu bett la nga am karjaat parce que yaay saa bu amee lu ko bett ci doomam xol bi dafay dafay mel ni dañ koy euh, dañ koy jam parce que doom si buti si xol la si kii la bàyyi ko ci biir yaay la bàyyi ko daggatu res la doom kon nañuy xool doom yu góor yi bu ñu mënta vérifier seeni portable ñu leen di yee si jamono di waxtaan ak ñoom moo tax doom dañ koo war a jege sa doom danga koy jege di waxtaan ak moom léeg-léeg nga yar sa doom ci biir kër gi mu am 7 ans 8 ans ñu yàq ko vieux la ko bu yàgg ñemewu la koo wax parce que jegewu la xale yi di souffrir ci biir kër yi di souffrir yow sa doom jegewu la jegewoo ko doo waxtaan ak moom su la doon wax dara sax balaa muy eggali nga fël gémmiñam dëkk bu ma wax doom danga koy jege boo buggee yar sa doom yar boo xam ne bu mucc ayib la da ngay jege sa doom def ko mu nekk sa xarit sa doom saa bu nekkee sa xarit rek du la nëbb day am complice ak yow boo xam ne day ñëw di waxtaan ak yow am na si ñoo xam ni ndeysaan doomi jigéen ñi seen papa yi mooy rôle boobu donte kon jigéen ñi la waroon bëri na ay papa yoo xam ne dañuy xaritoog seeni doom ba seeni doom li ñuy wax seen papa sax léeg-léeg duñ ko wax seen yaay loolu dafa war a am ci kër gi doom ji xaritoog kenn moom moo xam papa ji la moo xam yaay ji la nga xam ne lu ko dal rek dina mën a daw si ñoom ñoom dinañ ko mën a jàppale waaye bu fekkee sa doom ñemewu la am na si papa yoo xam ne ñoom bu ñu duggee ci kër gi xale yëpp fàttu nañu ñemeetu ñoo sëqat mais yow ki nga xam ne daf laa ragal ba ñemewu laa xool ndax dina am problème di la si jéem a utloo solution du am yaay ji bu fekkee talul doom ji bu xëyee dem na balaa muy ñëw xaaji guddi léeg-léeg am ñoo xam ne yàlla daf leen a natt nattu boo xam ne suñu xëyee ba dem mën naa am bu ñuy dem ñu ngi bàyyi seen doom di nelaw léeg-léeg sax booy ñëwaat fekk sa doom di nelaw gis nga liggéey bi lu mu neex neex neex lu ñu bëgg-bëgg alalu àdduna yar doom bi moo ëpp bénéfice moo ëpp bénéfice li ñuy daw di liggéey di tuñ tuñi yëpp xaalis rek lañ ci bëgg surtout nag ñun jigéen léeg-léeg dund duñu war ci kër gi léeg-léeg dara duñu war li ñuy liggéey yi indi pour lan natt yi xew yi li ma gën a metti ci sama àdduna mooy jigéen ñi li ñuy liggéeyee léegi di liggéey comme mbaam di liggéey suba ngoon bu dégg bëccëg ngeen baal ñu si kàddu yi sonn day gis ko liggéey un an dajale xaalis benn xew ñëw nga yàq ko ci teral njëkke teral goro def loo xam ne mënoo ko bu ñooñu ñibbee dem seen yoon yow nga desee sa naqar xew ba bët set loo jëndee saabu doo ko am gan ña fa des sax ba matul loo leen jëndalee ndékki doo ko am te la ngay terale ba matul doo ci am sax bànneexu nit ñi nga doon ut doo ko ci am yàlla moom waxi nopp ndax yàlla dégluwul loolu léeg-léeg nga teral ba pare njëkk li mer na li nga ko teral dafa tuuti te xamul nu mu noo def ba teral ko goro bi xeeb li nga ko def jox xale bi di gis loolu su màggee rek loolu rek mooy dëgg damay liggéey denc pour bu ma amee xew man tamit dañ leen a war a jàngal ne xaalis nekkul loo xamante ni dañ koy liggéey rek pour ñëw yàq ko ci ay xew ay benn fan ak ñaari fan déedéet gis nga alal ji ñuy liggéey yowmal xiyaam dañ koy compter dërëm për dërëm foo ko jële foo ko dugal foo ko jële foo ko dugal ba mu jeex ñun nag wax dëgg yàlla nangu nañoo liggéey bi ñun jigéen ñi waaye noonu lañ koy yàqaat doo gis ko ku liggéey am alal ji dul jeex ne xaaral mu ñëw jox lii dindi si lii jox kenn mu dem liggéey am alal léegi ñu daal li ñu neex mooy nañ ko nañ ko yàq rek xewee ko rek mu jeex xoolal Xadija radiyallahu anha commerçante bu mag la woon li ko boole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy moom daf daan jël ay xale yu góor ci dëkk bi financé leen alal ñu dem jaay bu ñu ñëwee indil ko bénéfice am yonent bi nekkoon ku ko koo xamante ne nii ñaqam la daan dundee bokkoon ci famille boo xam ne amul woon ndax xam ngeen ni papaam dafa teel a gaañu sallallahu alayhi wa sallam yaayam teel a gaañu maamam di koy papaam bu ndaw yar ko gaañu maamam yar ko maamam nekk mag nekkoon koo xam ne jaboot la amul woon noonu yéen bi daan sàmm ñu koy fay mu jigi nag bu mu déggee ne Khadija day am xale yu góor yi muy jox xaalis pour ñu dem jaay si la dem si Khadija wax ko ne dafa bëgg a jaay Khadija duñ jox ko xaalis muy jaay léegi ana Khadija yi ci dëkk bi jigéen ñi foofu lañu war a roy bu ñu liggéeyee ba am seen alal ut ay góor ñu jub ay jeunes yu jub jox leen ñu dem jaayee di indi jël seen bénéfice ñoom ñu jox leen seen seen capital su ko defee dëkk bi day neex waaye liggéey ba sonn yàq ko ci benn bis léeg-léeg sax sëy ba nga koy yàq du ko jar xale bi day dem ñëwaat man gis naa ko ku xew xewal doomam xew bu rëy sëy ba amul un an xale bi tas ñëwaat sa xaalis yàqu sëy ba baaxu kon xale yi nañ leen jàngal ñun yaay yi surtout nañ leen jàngal li nga xamante ne ni moom mooy jub ak ni ñuy fàggoo alal ak ni ñu koy dépensé il faut ñu xam ko parce que ñoom suñ ko xamul ni ñuy doxalee rek ñun suñu ci àdduna yàq ñoom noonu la ñuy doxalee te loolu dafay nekk musiba boo xam dafay law ba suñu sët kon nañ leen di yar ci loolu beneen bi ñu yar leen ci li nga xamante ni moom mooy ñu yar leen ci li nga xamante ni moom mooy ay jikko yu rafet bi ñu waxee jikko yu rafet nag yépp lépp ci dugg sànq dañu détaillé mais bu ne jikko bu rafet lépp ci dugg jullit dafa war a nekk koo xam ni kuy rafet jikko lay doon yonent bi salaa salaam ne dañ maa yónni pour ma mottali jikko yu rafet yi xam ngeen bi muy door a ñëw biñ koy yónni ba bu màkk siif moo fa amoon da ngay yar sa alal ngay dox ñu daal di koy këf sàcc moo fa amoon jubadi moo fa amoon koo dénk mu mu loolu da ngay romb gis nit sax mu xool la neexoo ko rek mu daal di lay ngànt dóor la ndax jikko yi ñaaw te booy xool si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla benn jikko la ko taggee ci alquran mooy jikko bu rafet te innaka la ala xuluqin azim yow day muhammad dëgg-dëgg boroom jikko ju rafet nga boroom jikko ju màgg bi kon noonu la ñu war a yaree suñuy doom yar leen ci jikko yoo xam ne jikko yu rafet yi ngay doon xale bu amee jikko bu rafet rek dafay nekk koo xam ne dafay baax te su baaxee société bu baax comme li nga xamante ni moom la ñuy wax point bi ñuy mujjee nag mbokk yi mooy nañuy ñaanal suñuy doom gis nga doom boo defee li nga war a def ci digganteem ak papaam papaam def li mu war a def digganteem ak yaayam la fa des mooy di ko ñaanal doom dañ koy ñaanal parce que waajur mi ngi ñaan yoo xam ne saa bu ko ñaanalee doom yàlla daf koy nangu dañuy wax ne benn xale dafa tëwoon yaay ji nag su ñëwee rek danaan ko yàlla nga nekk imaam bu ko bu defee dara lu ko metti danaan ko yàlla nga nekk imaam xale bi tey mooy jiite màkk mooy imaamu màkk gis nga li nga bëgg sa doom nekk loolu nga koy ñaanal waaye ay saay-saay bi yaa bon ay yow naa nga su bookun ma la te gis nga baatu su bookun ma la mooy baatu rëbb yéen bi salaa salaam nee na gileem sax boo ko rëbbee war a toog koo toog bàyyi ko rek mu dem si àll bi ba ko rëbbee di ko dikkal nit kenn du ko rëbb doom kenn du ko rëbb dañ koy tere kon bu ñu leen rëbb rëbb ñoom doom la bu ñu leen rëbb bu ñu leen ñaan yàlla waaye nañ leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala doom saa booy julli di ko ñaanal yàlla daf koy gindi am na koo xam ne dafa am doomam doom bi nekk rappeur te yaay ji baax lool jub lool nekk rappeur xëy na mën nañ ne aay na aayut waaye rappeur boo xam ne lu ko neex lay def nekk ci xale yu jigéen ñi yaay ji nee na ma yedd ko ba sonn mënuma ci dara mu ne waaye ma tegale lu ma semaine yàlla boo xam ne saa bu ma tëddee bu guddi dinaa jàpp julli tàllal sama loxo sama borom ñaan ko doom ji tey noddukat la ci koñ ba mu nekk nekk koo xam ni jaamukatu yàlla la macha allah sa doom bu la tëwee wala bu fekkee yar nga mu échec ñaanal ko yàlla soo koy ñaanal yàlla yàlla di ko nangu waaye boo ko ñaanee yàlla wala baat yoo xam ne dama koy wax fu muy xale baat yooyu daf koy topp parce que lamb bi yaay dafa am barke saay-saay bi topp lu mu def ne kii saay-saay la rek saay baatu saay-saay boobu ngay wax dafa ne lu ndaw la mën na ko topp ba mu nekk ab saay-saay ak yeneen baat yoo xam ne ñun dañ koy wax duñ sax bàyyi xel sama doom ji nangam ak nangam wala bu ñëw yow doo baax yow laa di nga àll bu la sama àq dalee gis nga loolu moo koy wax noonu mën na koo dal parce que àq waajur ci doom dafa diis kon doom yi nañ leen di ñaanal yàlla bu ñu jubee ñu ñaanal leen yàlla gën leen a jubal suñu dëngee ñu ñaanal leen yàlla yàlla jubal leen parce que loolu rek mooy tax yar bi nekk loo xam ne lu complet lay doon bu ñu leen ñaanalul rek day day musiba day am toujours damay nettali kii doomam doon ñëwoon ci moom fekk muy mooñ mu jël ndox sotti ko rek mu mer te yàlla na la oto tën xale bi dafa génn rek oto tën foofu la yem doom kenn du ko ñaan yàlla ak lu mu la munti def lu mu métti métti métti parce que parce que xol bu tàng rek ñaan la mais bu sa xol tàngee ci moom jàppal nga julli nga ñaan yàlla yàlla ëlbati ko ndax su baaxee rek yow sa sa sa sa sa teraanga lay doon yow yaay ak papa ji moo xam yaay ji la moo xam papa ji la kon kenn du leen ñaan yàlla mais dañ leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala mbokki julli bi suñu bëggee suñuy doom baax nañuy ñaan ñaan bii yàlla mu ne ñi nga xamante ne dañoo baax tey dañ daan ñaan naan rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman ñaan bi nee nañ boo koy ñaan yàlla dina la may njaboot boo amul njaboot te dina la may njaboot boo xam ne bu baax nga lay doon yàlla mu ne gaa yu baax ñi mooy ñi nga xam ni dañuy wax ne yow yàlla yàlla nag ñu may ci suñuy soxna ak ci suñuy askan doom yoo xam ne sedd xol la ñuy doon saa boo jullee nga koy ñaan yàlla may la doom doom joo xam ne doom si sedd xol lay doon mu ne ba pare nga def ñu nekk njiit ci ñi nga xamante ni mooy ñi ragal yàlla soo koy ñaan mën naa am yàlla may la doom bu sedd xol waaye sa doom mën naa nekk njiit bu ragal yàlla doom boo fi gis tey mu nekk njiit wala muy wax ñëpp di nga déglu yaayam si def na ay sacrifice ci ñaan yàlla ci teral baayam ci baax li ci des mu bàyyeeg yàlla ñaan ko doom boo fi gis muy agressé doom boo fi gis muy sàcc doom boo fi gis mu mel noo xam ne kenn bëgg koo jur boo xoolee ba ca biir di nga gis ni am na lu xewoon ci sëyu yaayam moo xam daf koo wax moo xam waxu ko léeg-léeg jéeg di sëy ci biir kër féetewoo togg bi fóot bi paase bi bu ayee ñëpp kontaan mais am na lu muy doxalee borom këram ci biir kër gi kenn du ko xam ku dul yàlla ak borom këram day feeñ ci ay doomam bu dee lu baax day feeñ ci ay doomam bu dee lu bon day feeñ ci ay doomam nee nañ doom yi ñu ngi rawantee ci biir néeg yi léeg-léeg nga gis ku leen soo jëkkër dafa naqari dara dama koy muñal lu nekk laa koy defal lu nekk laay def ndax ndax mu am bànneex waaye sama doom baaxul waaye boo xoolee ba ca biir ca biir néeg ba am na lu ko manqué kon nañu moytandiku loolu yaraat doom yi yar yu baax teg leen ci siraatul mustaqim jéem a jub ñun waajur yi suñu jubee doom yi jub waaye bu ñu dëggee rek doom yi dëgg kon mbokk yi suñu sañoon day tey dañuy continuer ak yéen ba suba waaye xam ngeen ni ci weeru koor lañ nekk xam ngeen ni waxtu dafa am solo te ñu bari dañoo bëgg a togg na ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ ko bëgg a jàllale tey de lii lañ leen indiloon di ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo mën moo am kàttan mu yaral ñu suñuy doom ba ñu nekk doom yoo xam ne doom yi sedd xol la ñuy doom yàlla mayaat ñu ñu fekkee détail bi comme niñ ko fekkee ñu fekke waat ko déwén fekkee bu rafet te yàlla mën na loolu yàlla na ko def di amaat mbégte ak kontaante ci teeru bi ak dalal bi wax dëgg yàlla de ñun jàppante nañu ak yéen kóllëre te incha allah duñ ko mos a dindi ndax dañu koo gis ci yéen ci seen mbaax seen yiw ci seen matal kóllëre ci seen lépp yal na yàlla fay leen yiw lépp lu ngeen mën ren yàlla na ngeen ko mën mën lu ëpp loolu déwén fépp fu ngeen bëgg seen quartier egg ak seen koñ egg yàlla na ko fa yàlla eggale yàlla mën na ko te yomb na ko yàlla na ko def ñuy tàggatoo ak yéen tàggatoo dul tàggatoo di wax aqulu ma tasmaun wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di dolli di gërëmaat di ñaanal yàlla Seyda Ndeye Fatou Fall di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla mottali yéene yàlla yàlla yokku leeru dënnam moo xam fu mu bëgg a jëmale li nga xam ne moom moo di mission bi nga xam ne ci la nekk yàlla na ko ci yàlla yenn ba pare téeñal ko su ko defee yaakaar naa waxtaan wi ñun ñëpp dégg nañ solo si nga xam ne moom la am xëy na bëgg nañ sax mu gën a yaatuwaat ci nan xëy na am nañu toog ci li nga xam ne moom moo di public bi te mën na am am nañu ay laaj ay question yoo xam ne wala ay contribution yoo xam ne maanaam joxe seen xalaat ci li nga xam ne moom moo di thème bi wala lu ñu bëgg yaa Seyda gën leen ko leeralal xëy na taaj yi ñuy wax léegi nii première année bi amoon na donc léegi nii rek bu dee am nañ xëy na ñu jël si ñaar ba ñett wala ba juróom ñu yëkkati seen loxo rek ñu jox leen micro bi ñu posé seen question su ko defee ñu gën a yaatal li nga xam ne moom moo di waxtaan wi su ko defee bu dee am na yaakaar naa am na wala am na ku bëgg a laaj. ok kon nag yaa Seyda ñu jox leen.
asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen ziar te di leen baal àq di nuyu yaa Seyda di ko jaajëfal ci waxtu am solo bi waaw man li may laajte mooy ki nga xamante ni ngërëmal waajuram da koo raw da koo rëcc ba mu dëbb leen ndaw loolu nan la war a def ba dagguwaat loolu ba rëcc
tur bi naan la Mor am di sëñ Mor la am na keneen xanaa dañuy jot dajale yëpp ramasser yëpp doog a doog a tontu incha allah am na keneen ko am lu muy laaj.
salaamaaleykum wa rahmatulah man de li may kii sax presque du laajte yaa Seyda daf ci wax ñaari ñaan bi nga xam ne suñuy jàng suñuy nodd moom la ñuy wax